xam nga Boy Niang mbër muy dóoree gauche droite doo ko daan mbër muy sànni gauche droite doo ko daan te Balla gauche droite lay xeexee te Boy Niang da lay appel droite reculer nga sanni croisé gauche sànni croisé droite mu aspiré da lay sàcc te Balla Gaye bu sànnee gauche day sànni droite démb sànni benn croisé gauche sànni benn croisé droite boo mbër jee waaf dëgg ko croisé fa lamba làmb ja jeexe te Balla Gaye ba pare Balla bëgg na xeex waaye boo ko tuusee mu nelaw boo ko tuusee ci làmb maasoir bi boo ko lambee lañ ko waxoon ci làmb bañ lañ ko conseillé woon ci kër ga da koy fàtte lu leer laa lay wax saa boo ko duuree yàq làmbam bare dafa tax dafa am habitude habitude bu nekk ci moom mbër mu mu gëdd rek boo dawul rek day am problème parce que mbër dañ ko tàmmal ku mu gëdd nga daw maanaam li la mën a xamal daal mooy Gris Bordeaux Boy Niang Eumeu Sène ku ñàkk fayda ku gëmul sa bopp Balla Gaye mën na daan Balla Gaye bu kum ci daan ci ñett ñooñu rek yaa gëmul sa bopp parce que dañ ko gën a pare xam nga oto buy dem tuuba ñu lay réparé di lay waat ak oto bu oto bu wow kong bu bees pull bu ñu tegee ci autoroute péage bi oto bi ñu réparé bu njëkkee àgg Touba rek chauffeur ba la waaye du oto ba akay noonu la demee nag instant bi ñoom Boy Niang ñoo gën a pare ñu Eumeu Sène ñoo gën a pare léegi li ñu si làmb boobu mooy fulla ak fayda waaye fulla ak fayda bu ñu ko amul Balla Gaye dalay waay di loo parce que waga la Balla Gaye dalay napp ci géew boo ruuxee mu waaxul ñibbi waaye boo dëgalee sa bopp ñeme boo koy bu la dóoree boo dóoree mu pare ñemul. ku mel ni Boy Niang ak Sa Thiès ak tane instant bii parce que ñoo ay ay la ñu mais Ama Baldé bi mu yor est-ce que du ci na. Ama mu poids bi mu yor ni man arrangé wu ma bëgguma ko. parce que gis nga 1 mètre 75. su duyee 135 kilos. bu ko mbaam rombee ñeenti mille day dëpp. parce que xol ba. 1 mètre 90. mën naa am 140 kilos day dem yoonam. parce que ku nekk. cavillon cavillon mënut a am pneu R4. R4 mënut a bu ne fa mu war a dugg nañ ko fa dugal rek buñ bëggee jàmmaam tappale mayewul dara ci làmb. kon ñaari ñi ñaari mbër yi leen mesuré Modou hmm. seen état physique. Hmm. bu làmb ji ni Modou Lo mooy avantage. non combat boobu amul lenn lu ci Modou Lo di perdre wala ci ñàkk maa ngi doon moo ñemee wax ni Ama moo ëpp doole Modou Lo ñaari yoon kan moo ñemee wax moo ko ëpp gàllaaj wax moo gën a waka moo ko ñemee wax moo ko gën a xor ci ay loxo kon jox ko combat bi Ama moo war def lu muy def na gaaw te assuré bu ko Modou contrer làmb ji mën naa yàqu Ama ko combat bu wurtu foofu parce que maa ngi roi des arènes yaa ma dooleel dama lay jox combat bi léegi say faay man ci laay bëre te Modou ci ay faay lay bëre Modou song kenn ci ay de day taxaw ak gardam di la xool boo def mu rempli la. moo ko Eumeu Sène nu mu ko def bu passé Eumeu pied droite la jiital moo du jiital pied gauche Eumeu sànni laaw gauche moo du esquive kor ko dóor koy pirki bàyyi ko mu dëpp kon fay Eumeu Sène la sukkandiku dóor ko ama pied droite lay teg bi muy njëkk a sànni muy ubbi làmb ji moo koy tëj xam am yàlla moo ko xam maa ah. maa ngi nuyu sama booy